catégorie gendarmerie de service de victoire président de la République président ci président de la République mooy demande structure la carte de plateau carte de carte en 1902 soxna fële xona yak mu nekk la résidence officielle du gouverneur général la présidente de la Léopold Sédar Senghor en 1964 ba bi ñu 82 ba la 2012 Macky Sall depuis 2012 bu ñam fi ñaat fi ñu xaar ba bi yow da bëgg jot président la ko ko loro lo de la wa alaykum oui bonsoir monsieur oui bonsoir sëñ bi vous allez bien ça va bien merci joxal sa tur ak sa sant nom prénom ak fooy wootee c'est Ismaïla Diop euh, depuis université Cheikh Anta Diop. Ismaïla depuis université Gaston Berger. Ismaïla, que vaut votre honneur d'appeler dans le palais de la République. je peux avoir le président s'il vous plaît. le président est occupé. voilà de mën naa la yóbbante ci moom ah. moo ok voilà euh, boo amee tuuti taxaw seetlu monsieur. Ah. Euh, université c'est fait c'est pour étudier. pour. étudier pour jàng ah, que c'est fait pour vendre des pantalons jean ak mais monsieur. ah waaw loolu université c'est fait pour étudier mais loolu moom quel quel genre de wax la loolu. non non non mais tout le monde sait que université c'est fait pour étudier mais boo naan ma université c'est fait pour étudier man dama la je croyais que c'est pour vendre des pantalons jeans et des sous-vêtements et des ah, ok d'accord loolu mooy sa xalaat monsieur ah. Eh, waaw lu waral woote loolu mooy sa xalaat. daal damay kii wax rek loolu sa xalaat laay laaj. non juste juste ndax yow loolu mooy sa xalaat am de. non ni nga la rek maanaam xam nga wax dafa am wax yu direct yoo xam ne jarul kii jàddal. ok mais est-ce que t'as fait les bancs ou toi aussi est moo tax toog fii. non non non non yow. li ngay lakk même non non non même li ngay lakkee yoon jaaru yoon. Ah, diplôme en main en poche boobu. non diplôme en poche. waaw nekk ci palais bi quoi. oui man foog naa palais éthique et déontologie moo fay toog. Ah, ah, ci dama. am na fi. doo ko ci ok comme que am na fi te boo ko ci léegi président bu ñëwee nee euh, ko euh, fii euh, université du pour politique. kenn ku ci ne yox parti ma. Ah. université dañ koy politique. non non bien parce que ah dañuy léegi dañuy jël université di ko politiser. parti Sonko ici APR là-bas PRP bu Déthié Fall là-bas vraiment pire nekk côté bële dafa dem université mu ngi yàqu quoi. PDS mu ngi fi. dañu dem ba jàngatuñu. PS am na fa. non non mais bien sûr parti socialiste mu fi. amoo ah mais mais mais non non non xeebul mais lépp lépp lépp rek ñu bëgg ko politiser. Hmm. président dama bëgg mu taxaw taxaw def benn seetlu tuuti quoi. affaire yooyu dañ ko arrêté biir biir université université pour jàngale quoi. nekkul c'est le temple du savoir. c'est le temple du savoir mais pas le temple de politique. bien sûr bien dit monsieur ah ah ah parce que je suis vraiment désolé. mais mais dis-moi quelle je te dirai quel pays tu auras. tu as mais bien sûr monsieur. t'as bien dit parce que ñun jàng moo ñu moo mm-hmm. mais pas ñi politique fii de gauche à droite. di ay mouvement di ay réunion yoo xamante politique rek sans fin quoi te loolu loolu day yàq réew quoi monsieur sa xol sedd bu ma xamoon nit foofu ngay waxee moom ma ko quoi waxal dina woo kii dina woo euh, kii dina woo directeur directeur directeur COUD directeur COUD directeur COUD. directeur COUD waaw waaw d' accord d' accord d' accord. ma ma j' master 2. master 3 ba master 20 fii laa ko defee. ayca sëñ votre correspondant peut être j' problème ma may appeler ultérieurement.